wooyu kenn téléphone maalaw dama per ok léegi nañ dem da nga ne léegi nañ dem ñoo ñëwaat na mais mais li ñu waxoon jot na tëb quoi jot na tëb mais ñëwaat na ok ñëwaat na mais li ñu waxoon moom tëb na ok yow léegi da nga ne danga may laaj question wala man maa lay laaj question waxtaan bi lan nga bëgg ñu def déggoo man la laaj ma loola neex ma tegal la man dugguma foofu man la dama lay manipuler laaj ma loo neex. waaw ok dossier Covid bi laa laaj léegi wax amul nag ay ay non c'est-à-dire fii nii bu ma ko waxee rek dina exploser affaire yooyu noonu boo xam ne dama lay laaj. boo mu mënee tontu sénégalais yi comprendre seen réew la ñu bokk yàlla may la nga nekk ci am li nga ci xam donc ngir yàlla euh, euh, jaamu yàlla bokk na ci ngay nga yeete nga xamale. li nga xam ni yàlla jot na la ko may parce que yaa ngi ci système bi yaa ngi ci biir xam nga nu mu demee tout donc di nëbb yenn yi euh, xaw ma looy wax yàlla yomal xiyaam te yow loolu taxul a jóg moo tax nga ñëw ci man pour ñu partager léegi li ma lay njëkk a laaj mooy mbirum Covid bi affaire yi dafa génn yow per macha allah dëgg-dëgg dañ lay sant ba nga ma ñëwee wax ay Rayane euh, kii di kii di Rayane HM bokk naa ci njëkk njëkk a wax Sénégal ne Rayane HM bokk na ci. Mm. ñi nga xam ne ñoo taq ci Covid bi man maa yow yaa ma waxal ne wax leen ni ceeb yi ñu doon joxe est-ce que bande bu ruus bi mi ngi ci saag bu weex bi ba ma waxee ñu bëri ne nañ ay saag saag yu jaune lañ jot ñi naan verte ñi naan yaa ko wax. maanaam daal yàlla dafa def ni lépp li nga wax kenn mënu ko dindi man loolu moo tax man nga nga nekk koo xam ne dama dama la wuulu parce que waxagoo ma luy deñ et je le dis haut et fort mosoo ma wax luy deñ. te tour bon tout après sénégalais gisco ko mais père. waaw mais man man man sama voix déedéet boo dégg ko xam na xam ce sa réponse mais plus assuré mm. niveau bi toll. mais je vais t'expliquer une chose claire et simple. pour affaire Covid bi légui Covid bi ñi ngi lay déglu sénégalais ba lay Covid bi. dama milliards Covid 19 bi euh, toute la population sénégalaise a reçu moins d'un milliard d'euros euros 1000 mille milliards de

mais loolu dama ne am na ñenn ñoo gën a garaaw xam nga man dama fekk ci mbedd fu ne lu ma lekk laay wut mais dama ne dama fekk ci mbedd mais mais yow Covid xam ne loo xam ne doy na set bu kenn wax Aliou Sall dara ay similia mais ñi def ci Covid moo gën a mooy nit ñi nekk ci naxam nekk ci tëju nekk ci lépp ndekete gars yi di ngeen tuur dañ boo xam ne xoolal teru bu setan te bare dama yore document loolu moo dem na dama ne la man mooy seet Dakar waaye ko yu ne lépp a ngi yi xam nga ko continuer soo ma la adresse boo bis ko waxee ma yàqu xam nga damay dóor damay dóor mais dama ne la nañ ne tekk Mansour moom macha allah mais le problème Sénégal benn problème la ñu am nañu wuti ci ciment Sococim ak leneen taka tabax ay prison ndax lépp laay balancé le gars le votre chef là Ousmane Sonko nga xam ne man man nekkuma Pastef mais man moom dafa nekk xol sama mbir xol mu xam ma ma xam ko. mais dafa nekk sa biir xol lépp laay balancer parce que pour être conscient euh, dama bëgg libre ak sama bopp lépp laay balancer dama yónnee ay avocat di yónnee sa waa la gaa la porte parole xaw ma naka Diop mu ngi tudd waa jooju noonu kenn faalew bàyyi leen noonu. mais père père xam nga man xam nga man xam nga xam naa la xam na xamante nañ ko waxtaan nañ yàgg na ba ba léegi. waaw suñu diggante nice na mhm. man bu la fekk may insister dama la xam. parce que sénégalais non xamuñu la ma dama la xam xam naa ne lu nekk sa bopp bi moo bëri bu ñu la laajee a nga tontu a dem tuuti dem z moo tax may insister di la cadré waat. mais dama ne la fay xam nga lan la laay jiw ci chiffre rek à à un pour cent laay jiw mais dama ne sama bopp bi fi ma toog nii di wër lu ma lekk mais dama ne la lu ma la tegal nga daw. te am na yoo xam ne xam nga li ko gën a métti mooy xam nga li a métti mooy d' accord Macky Sall les Sénégalais ñu lem pas tout ça problème. mais dama lu ci bëri daf koo xamut mais am naa am naa xeetu dossier yu bon yoo xam yu bon yu bon yoo xam ni bu ma ko kii rek mu teel xam nga démb dama la ne barki démb euh, Amadou Amadou Ba Amadou Ba sabar la woote di gars yi juumee waa Benno Bokk Yaakaar juum sabar mu sa mu juum ci li ñuy def mu woote sabar mooy kontaan mais yooyu mais am naa beneen dossier bu gën a grave ci Amadou Ba xam nga dégg nga man man mënu ma wax lépp. mënu ma wax lépp mooy dama xam nga ma toogee ba posé ñëw Sénégal ma tey xam nga li may def Sénégal trois jours laay def xam nga fi may jaaree dëkk may jaaree xam nga ko mais dama la bu wax ne la am na loo xam ni kenn mënu ko gis na yi toog noonu toog seen kër ñëpp di la tegu ña nga toog caakir yi tegu jabar yee ngi toog seen jéeg ak seen yëpp ñuy def seen yi def seen seen normal mais yow man ak yow comment on a préparé tout ça ma lay expliqué jox ay dossier ngay wax te li nga wax kenn du ci dara ci wet dara nga teg dóor leen neewoon nga leen pipe ñu lay kokkali di la wax pipe mais daa ma jox la benn annonce bu a garaaw ma jox la annonce bu gën a garaaw. waaw. per Seneweb bu tëj per Seneweb bu tëj yoon ci Seneweb na tëj suñu yoon naw ci Seneweb na détient pas le monopole de la vérité. mais dama la xaay <laughs> bu tëjee après la vie continue wax ñu gars yi yore milliards yi ñu sàcc suñuy milliards per. waxuma la loolu dama ne la Ahmed Aïdara dafa ubbi yoon affaire mais keroog sama booy bi dafa ma woo yow xam nga Frédéric yow yow xam nga Frédéric ñu bloqué affaire loolu garaawul Ahmed Aïdara découragé wu ma de booy découragé wu de gars lu may découragé ki lu mu wax xam-xam la du ma découragé de dama ko xam nag sañ gaan la du découragé wu ma de yéen laay dimbale yéen day cof dara bugg leen fa bàyyi may leen di dimbale di reyanteeg moom pour mu jox leen man découragé wu de am naa lu muy wax ni am naa ko li muy wax ni yëpp jox na ma ko yéen laay dimbale. <laughs> loolu loolu détail la. affaire bandi la. xam nga waa léegi léegi ma posé la benn question tamit encore nga baal ko. waaw. ñu nekk Benno Bokk Yaakaar yi ñan nga existé lay ñëw di taxaw. xam nga Diouf fa taxaw di wax ak golo ak Ndour ak ñoo yi golo yooyu di wax c'est les c'est les petits singes les radicaux. Mm-hmm. les radicaux ñooy wax. Mm-hmm. mais xala dama leen noppiloo may ma may ma trois jours ma noppiloo lépp. père. ay Diouf ak ay ñoom ah, dama eh, leen question ma posé ko père. posé leen eh, père xanaa xamoon naa leen waxal benn affaire de père doo ko dugal mukk ci live nga wax loo ko mu wax mais bu ma nekkee man ak moom kese li ma yor ci audioom li ma yor ci waxtaan. Ah, voilà moom da leen di junj yéen. waaw léegi léegi ma amul la amul la père ma bëgg yow nga wax ko moom laa wax sénégalais man leen. man ak père amul ci luñu amul lu muy wax ni yeb moom père il passe ah, tout son temps ak man monsieur Morgan dama bëgg nga wax ak ñom direct lan laa noppiloo temps père anamu yow euh, le petit le petit homosexuel euh, euh, qui refuse d'être homosexuel tan tan ya anamu père ah, lol ah, la la la dafa laal lu mu laal dafa laal nga baal ma de nga baal ma de toujours ma dégg say live nga koy saaga muy Samuel Sarr daf ko laal laalaat ko di wax a problème Samuel Sarr ak nu mu tudd noonu waay waay waay waay nu mu tudd waay taalibi saalibi bi ñuy woy waay nu mu waay na te nu mu waay waay waay waay kooku Samuel Sarr ki ma amal problème waaye nu mu tudd waay dimbali man mii man mère man père ma déglu mbalax bay xam kan moo woy kan man kay bul ma laaj yooyu. non non non waaw mais man du ma yow ma ko ko xam de. wax si xabaar bi ñu euh, Samuel Sarr problème beeg yooyu. Hmm. mais nga baal ma dara du ci dëgg. Samuel Sarr à présent. Cheikh Amar Amant. loolu lan la comprendre ma de loolu lan la. dama ne temps tanda bi ñu koy jox xaalis mooy suuf bi may jógee nekk ay ci oto bi di wax ak yow téléphone ne la maa ngi nii temps tanda nit a koy xaalis pour mu yàq Samuel Sarr. waaw. waaw xam nga wax ne la maa ngi ci oto bi aéroport. temps temps daa ñu tan koy diw ñu koy jox xaaliss pour mu yàq Samuel Sarr pour mu yàq Samuel Sarr. waaw loolu maa ngi ko waaw. waaw ma ma maa leen tele tabit Samuel Sarr bateau bo ñeex ndox bi pétrole bi jaxaso man la man la Staline mo ci dugaloon ya ko fatte ko loolu wax naa ko. ah d' Samuel Sarr tout le monde le prend pour un enfoiré d'accord même s'il a fait des petites bêtises mais du nit. mais lan la seq ak Cheikh Amar wax ma loolu. wa dama. lool dama koy dama koy expliqué le ministre sa Saxamaar depuis MMGG xaw ma loolu waa ji sant Gueye ki nga xam ne Thiès ko ki fay loyer di fay. EMG waa EMG. waa lan la lu xew waaw EMG. Hmm. depuis zone de captage. déglu li ma lay wax. maa ngi déglu ngay wax. waaw kay zone de captage. oto ba may bat bi nga xam ne biñ toogee paa bi may ko euh, Samuel Samuel jaay ko Saxamaar fa la problème yi commencé mais Samuel Sarr ne doit pas. un un centime. mais da ngaa teel a da ngaa teel a conclure déedéet déedéet déedéet loolu sénégalais yi mënuñu ñëw rek gobe loolu. woy may baax benn paa bi jox ko noonu après rek mu ne dañ ko sàcc amul benn centime da explique nous l'histoire lu possible ci suñu nopp. déggoo ma de déggoo ma de dama ne dañuy toog ñëpp soxla oto bi may baax bi jëkk paa moo ko jël may ko Samuel Sarr. Abdoulaye Wade moo ko may Samuel Sarr. Samuel Samuel on perdu les élections commencé e zone de captage. Hmm. Le problème problème problème commencer problème commencer problème ok. Nous dem nous dem nous dem nous dem nous dem dem mais pas à parce que euh, Cheikh Amar quelque chose au Dieu mais Samir Sarr il faut di wax ak moom di wax ak moom di wax ak comprendre mais xaalis bi muy wax ne daf ko jox Samir Sarr ba jox du dëkk. du dëkk man maa yor man maa yor yi man mii du keneen moo ko yor man yor c'est son problème c'est son problème mais dama la wax ne d'accord lu ne ko du oh ay dóorkat lañ ay sàcckat lañ père kooku moom mënoo ko wax dara du dëmm ñun ñu dëmm en tout cas yëfu dëmm la def sàcc na sénégalais yi dama ne père mënoo ñoo wax leneen sàcc na sénégalais yi ak information yi ma lay jox yëpp benn chose nga baal ma nga baal ma. sa gaañ la rek xam nañ loolu mais sàcc moom mënu mënu taxaw dañu wax leneen de. du sama gaañ mais non non da bëgg a ah. mais le problème li ma bëgg nga déglu ma bu baax. ma la lañ bëgg nga wax ñu ko ñu ngi lay déglu. waaw li ma bëgg a déglu ma xamal lu tax. Hmm. mun na am nga loo gëm. taalibe Baye Niass nga taalibe Cheikhul Khadim la sëñ Saliou Mbacke kenn du ko fooyee. léegi. kenn du fooyee sëñ Saliou Mbacke. léegi léegi. waaw dama lay weesu xam nga ñëpp dañuy wax ni kii mooy taalibe sëñ Saliou Mbacke de mais dama ne la dama ne la Samuel Ahmed Sarr laa la wax. waaw Samuel Ahmed Sarr. waaw léegi li ma gis mu def man sama bët. man li ma wax ça me ma gis sama bët mu def ko mu doon taalibe Serigne Saliou boo xam ne bu dëgg am na loo xam ne mënu ma la ko noter ci hôpitalu Belgique. teew suñu oh. hôpital boo xam ne Serigne Saliou nekk Touba déglu ma nekk Touba ñu taxaw Serigne Saliou dugg ci biir hôpital bi do duma fen pour kenn nañu foofu te dañ ko nu ci beneen dossier gaawal gaaw balaa mais père yi muy wax dafa waxu dara ay père Samuel Sarr ba léegi ñu may wul Samuel Sarr dafa nekk ministre yore ay milliards sénégalais mu munoo ñoo wax leneen Samuel Sarr dafa fi tous yàq électrici électrification bi la def yor na fi énergie dafa fi tous amul fi benn résultat mu fi def ñun ay sénégalais lañ ñun tam dañ doon dund du ay liir waaw léegi nag bu sàccee dem def fële fële la su yoon newu ci voilà Morgan ah perte waxoo ay xale de waxoo xam nga ah. xam nga xam nga nit ki lu baax nga koy xamal. waaw mais ni des loolu fay faral Samuel Sarr euh, wala dama mais dama la bëgg a xam man li ma gis mu def man li ma gis mu def. père Amadou Ba moo dàq def moo daq def Amadou Ba moo dàq def Samuel Sarr pouf. kan Ba. non déedéet déedéet boo boo tuddee Amadou Ba moytu sa làmmiñ mu taxaw de Amadou Ba boo ko tuddee rek yàqu. ah bon. bis bu bis boo tu billahi wallahi wa taalahi barke Cheikhul Khadim bis boo. mais Samuel Sarr du xeer. du xeer. non waxuma la waxuma la xeer la mais dégg ma je suis pas là pour justifier Samuel Sarr man. moo gën de maa ngi defoon ma dara mais dama li ma gis. ak li ñuy fen ak temps tangent lu tax ñu noppiloo ko yow kan moo noppiloo temps tangent ku la jox bagage temps tangent en tout cas noppi na sénégal yëpp gis nañ keneen ak keneen lu tax ñëpp noppi lu tax ñëpp noppi dañ ko fay ma gis ko sama bët ma woo la nekk yoonu aéroport woo la waaw diw jox na ko temps temps temps temps pour mu salir Samir Sarr man nañ xàtti Samir Sarr ubbi Samir Sarr moo gën de oublie la mm, moo gën de mais dama la nga mel ne Amadou Ba yow kon ne di tudd Amadou Ba léegi ngay yeewu sa làmmi nekk sa sa tànk <laughs> léegi lu yow xam yow xamul tax Amadou Ba dañuy dangeen ko xeeb yow yow yow ak Macky Sall ak keneen dangeen xeeb Macky ah, Amadou Ba mm. gis nga billaahi wallahi tallaahi bu dee tey jii may wax heure bi di wër lu ma lekk gisaguma dara dëkk bi xam nga dama fi mu ñëw mais parce que dama fi dama fi ay séminaire mais dama ne la Moustapha Diakhaté billaahi warul fanaan Sénégal lënd. lu tax. laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah. sallallaahu alayhi wa sallam lu xew. ñii yaakaaruma lu dul xaadimu rasuul. tey te ñëpp xam nañu ne sëñ Babacar sama xarit. lu tax lu tax mënu fa fanaan. Moustapha Diakhaté dama ne la li gars yi di pare fi mu ne nii. billaahi Morgan boo ko xamoon boo leen ko xamoon sénégalais yi toog di la déglu boo leen xamoon li xew di ngeen noppi yi parce que élection yi cent douze yi boo leen débrouillé je m'en fous vous aurez di ngeen perte douze yi nga xam ne dañuy jënd ay baadoo la moom cent douze yi moom wóor na leen boo xoolee sénégalais yi yeewu duñ dem voté yi mais sénégalais bu ci jugul yeewu voté woo billahi wallahi taala safara nga jëm mais père ma laaj la question di nga ma tontu ah waaw Amadou Sall la Amadou Sall non de milliardaire nag arrête de dire ça question. doomu doomu président la du milliardaire c'est pas milliardaire c'est un multimilliardaire. waaw <laughs> ah, mais bàyyi di wax loolu loolu saaga la loolu c'est une insulte. non père question la nga def multimilliardaire la <laughs> ok léegi ma laaj la benn question père beneen question. parce que man lu ma lekk laay wër. waaw yow tamit mais ci internet bi ngay wëree nga lekk non nekk ci mbedd mi yaa ngi ci internet bi di wër loo lekk. nga ni laa ne parce que dëkk bi ñoom dañ nekk sabat sabat sabat bi sabat xam nga depuis vendredi. ok waa léegi. waa ok waa waa d'accord masa masa masa masa masa. masa masa père masa. di nga reeree ndox gëm yàlla de. Ah, ah, ah, xanaa doo taalibe Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall Serigne Saliou. tamit loolu doy na sëkk. waaw kon kay. réeral laa ilaaha illallaah rek yow réeral laa ilaaha illallaah rek. waaw ok amul yow nga ne waaw na per. dégg nga sànq phrase bi ma wax ne la asbil suturi asul umuri kashil xuwi bi laa kiddee. waaw léegi ngir yàlla bu fi waxaat waxu ci lekk nag. comme comme wax nga asbil suturi asul xubu. damaa bëgg lekk nag damaa bëgg lekk nag lekk xam nga xam nga man xam nga soo ma woowee lu ma la def dama dama ay ay ay cocktail la ñu may tegal may lekk. lekk dama xaw bëgg sa joxol muyal muyal mais père léegi non ya non ku bëgg lekk nga macha allah waa léegi asul xudóor yi moom xam naa say biir na fees muyal rek léegi ma am benn question ma lay laajar quoi léegi na nee nga Amadou Sall la léegi père Amadou Sall est-ce am na liggéey. su ma la wax la ma ne milliardaire la man la déedéet danga ma laaj léegi père beneen question. dama lay laaj ngay tontu ah Amadou Ba Amadou Sall di moins lan mooy liggéeyam. Hmm, day na waar la oto yee ak booy ba ma problème ak oto yi waxoon naa la. waaw nga ko ma wax ko ah. hmm, waaw. mais am na bii nag daa maa leen koy dencal nag bii il faut ma doon euh, star quoi <laughs> am na am na lu gën a garaaw am na lu gën a <laughs> mais damay tekk. bii nag ma bii day yomb nag non ma nii may utuma lekk nga ma yomb mais li ma la bëgg expliquer mais man xam nga kan laay dellu si waat nga baal ma hmm. nduur boobu di wax noonu porte parole sor amee amee sa Touré ba muy toog noonu ñuy def seen conférence de presse ne ko nduur geesu gis ma ma boo gees xoola conférence de presse li ma si li ma sol bees laa sol de xool ma hmm. waaw lui le plus enculé des enculés le nduur la waaw Pape Malick Ndour Aminata yow xam nga li ma bokk Aminata waaw waaw Aminata Touré waaw xam naa ko am na xam mënu ma fa sori sama s mënu ma fa sori nga baal ma il faut que yéen saa nag c'est le sang qui parle c'est le sang qui parle gosaas gañu bokk ak leneen ak leneen loo xam loo xam mënoo ko waaw père lan lu ma eh, eh, léegi ma la laaj ma père da nga fàttali ma question ma la posé mm-hmm. wala tontu nga ma vas-y vas-y vas-y vas-y non dama ne est-ce que yow yaa ngi fàttali ko question ma la posé ak fu nga mujjee wax rek ma wax am na liggéey am na profession. ne oui ou non. Mm, waaye am profession. lan mooy profession am. néew. néew. waaw. multimilliard le mot N E A N T. ok d' accord na ko d' accord amul mais université bu rëy la génne mais profession boobu bi ne neyaa la. neyaa la mooy profession ok d' accord ok. la quoi. mais man xam nga mënu ma ko parce que man xam nga Macky Sall nu mu demee de nga baal ma de gaañ la Macky Sall laale li may wax nii dama ñëpp dégg ko gaañam laale mais dama a fa. mais man du problème mooy askan wi fi ne pour libérer libérer ma conscience. waa léegi Père. Euh, Père balaa euh, léegi. Euh, kii nga xam ne mooy Mamour Diallo fan la nekk instant yi ci lan la nekk ci ay trouble. waaw Mollah Morgun yaa ngi problème. li tax xam nga la. waaw dañuy man la lan la la annoncé ne la Mamour Diallo dañ koy sacrifié. waaw. mais sacrifice ma jox la liste bi mais léegi xam nga yónnee ma mille dollars Sénégal mille moo yeggee Sénégal mercredi li ma la wax ni yónnee ma mille dollars moo wax la liste bi liste bi du Mamour Diallo rek de Mamour Diallo affaire Adji Sarr la Adji Sarr xam nga on a oublié tu vois c'est fini. Adji Sarr ma oublié moom moom kenn waxatu ko. Adji Sarr loolu ku ci toog di wax nag vraiment da ngay tardé sa bopp mais le problème mooy man sama Prodac. non Mamour Diallo Mamour Diallo Mamour Diallo. ak kan a ñan lañuy ñuy sacrifier le problème mooy xam fi li koy defal nii hmm. di ko ñaanal yàlla mu gudd fan parce que Mamour il faut mu mos kaso mais dey day dem mais dama la na Mame Mbaye Niang a gën a garaaw boobu dossier ak ñoom tey du saar ak Mamour xam nga dossier bi Mamour Diallo la loolu quatre-vingt-quatorze milliards nañ ko puus na le mais Mamour Diallo tey du saar tey du saar Mame Mbaye Niang yaa na dossier product bi xaalis bi immeuble yi te ma jox la adresse yi jox naa la adresse yi ni njënd yëpp ba pare ma yor këyit yi xam nga yooyu ay dossiers yoo xam ne Sénégal yi dañuy toog noonu toog di xaw ma seen live yooyu ñuy def naan may ree damay ree mais y a y a des dossiers chauds chauds chauds chauds mais père ñu ne euh, Jean euh, Jean Pierre Senghor bi mu ma waxoon am na ñu ne defu ci dara moo tax après deux semaines après Macky Sall da ko falaat conseil non Jean-Pierre Senghor ñooñu xam nga yow xeetu séeréer googu séeréer xam nga ni ñu mel dañu sérieux. Hmm. séeréer duñu du ñoo waroon a gérer Sénégal yi duñu nit dañu baax. Hmm. séeréer yi dañu baax. ñun xam nga ñun wolof yi ak les autres euh, xaw ma Saalum Saalum moo parce que ñun ay man Saalum Saalum la yow Saalum Saalum nga xam nga. Hmm. mais dama la bëgg a suy na la ñu ah ñoom Senghor yooyu ñoo déet déet booy dégg ko Sénégal dégg ko demal dégg ko séeréer séeréer yee baax. mais dama la boo xam ne ne ko baat bi nag bàyyi bàyyi rek seen jot législative par Prodac bi na la demee Prodac bi Prodac bi Prodac bi nu mu demee noonu ak Mame Mbaye Niang ah, vingt huit nag leer na nag vingt huit nag mais quand même di euh, kii la ñu encaissé vingt huit milliards waaw waaw mais dix neuf la léegi lu mu def dix neuf milliards euh, moom Mame Mbaye Niang dañ ko tasa tasaare rek saa yéene yeewoo romb seen oto di ko gis euh, dañ ko ci ay meuble immeuble lañ ko def quoi gaid gaid la bobu bobu boobu may ko xam nga dama yor chance yeen say ka nga dérapé comme tay dérapé ga fuma ma dérapé wax nañ ma ko léegi sama te benen téléphone ma yor mais graw jéggal da mais fa la dérapé fa la dérapé. non lolu lolu ci souf lañ koy wax ma yow. ah way way way xamna fi ngay wax fi ngay. xamna xamna wa xamna xamna non père du dérapé dang ma ñaan dang ma ñaan mais man sama j'ai le sang chaud mu tang mu dor danga ma xam naa. Ah, mais Sancho tamit ma mais mais Sancho xam nga nit kàddu la am maa yow lan mooy suñu contrat. waaw mais père père père yow xam nga da ngay bëgg a sauver ay nit man am na ay yoo xam ni. waaw mais ma may ma may ma wax. suñu contrat mooy lan bu kenn war nit. waaw mais waruma de père da nga ne ma euh, euh, kii nëbbal ma ko. may ma tuuti may ma tuuti. waaw parce que nga baal ma bu fekkee loolu dañ ciy wax. léegi dossier bi ñu doon wax tumaani nañ ci wax. xam nga déggoo moom wax. waaw mais lu mais mais mais lu deful dara. non déggoo moom bu ne deful dara. Ah. xam nga audio yónnee nga ma yónnee nga ma bagage ñu la yónnee ñuy di la wax xaalis ak yëpp ma ah, Marème Faye man la c'est du man la c'est du faux. que hmm. moom hmm. mais bi ko comprendre tey tey. tey tey tey tey tey de dama dégg sa benn message nga ne ma waa kii dafa juum na dama saboté mais dama ne la. Hmm. gor gor rek la mën a doon. as gor bu ñu waxante dara xalaat nañ ko respecté parce que je te dois pas un euro tu me dois aucun euro. amuñu luñ kenn fay dañuy def pour askan wi mais bu ma la ñaanee dara. ne la parce que am na yoo xam ne source yoo xam ne ma koy jël am na loo xam mbokk yi rek day yàq loolu doo xamante lépp parce que comme te man je bouge beaucoup et je me soigne je me tu sais que je me soigne. yow xam nga xam nga samay docteurs professeurs yi ma yor. xam nga nëbbu ma la dara donc dama am na yoo xam ni bu ma lay wax. da nga ma di comprendre parce que dafa am lo jang rap nga jang ak waye bind texte waye man dafa am ma jàng waaw waaw fofu nag dama la ci loolu bu ko taxaw xawma ndax yaay maa ngi biir tool la nekk ma mais dama loolu dama ko bëgg en privé ak yow musuma la mère mais tey la la mère waaw ok ben problème la xaar ah, mi direct ben damay expliquer damay expliquer rek damay expliquer aussi maa lay déglu boobu ba léegi ben problème la danga ma ma jox dossier am sa benn am sa kenn ku ci nekk koo xam ne nee nga ma kii bu ko tudd man dama man dama doon liir rek xam nga dama doon liir tudd xëy na kooku dóor la signe ne la dama ka tudd ok tudd naa ko mais buñ ci accentué wul xëy na mun na rëcc mais c'est vrai yaa ñaan nga ma vraiment ça fait trois jours euh, bul tudd kii bul tudd kii bul tudd kii mais ce que ça veut dire que gis ay góor bu ñuy waxtaan man yow man yow mayoo ma nuru musoo ma may un euro musoo ma te man dama lay avertir lu ñëw ci yow dama lay avertir. dama koy xam na la dinañ la proposer temps. waaw man la bañal nga ne ma gor laa paire. waaw xam nga ay gor bu ñu dox dañuy dox mais am na loo xam bu ñu ko waxantee man ak yow balaa may jël avion bi dama waxanteeg yow.

ce Ndour là ki parle la ce petit-fils PD boo xam ne bu ma la nettalee loo xam ne moo ko nettalee. Pape Malick Ndour Prodac Pape Malick Ndour Prodac ok. waaw pour pour te dire que kooku dama ko teg en tête kooku bu ma jógee li may pare dama am benn logiciel mooy jël noonu pour am lu may gérer pour dimbalee ko waa Yewwi Askan Wi waa Pastef ma dimbaleen ko jox leen ko gars yi kenn du leen mën a contrer loolu laa liy jënd fi mu toll nii man li ma intéressé du ay nduur boobu mais gis nga boobu. du remettre à baax ak Diouf bi nekk télé yi di wax yaa un Diouf yaa un autre la Diouf la ak keneen ak keneen xaw ma Malick Diouf xaw ma mais ñooñu dañuy noppi parce que dama yor seeni le comptable et l'autre le journaliste comptable la kenn kenn ku journaliste la mais dañuy noppi parce que man dama la waxoon ñëpp naa leen te seen gémmiñ téye naa seen gémmiñ yu non téye nga seen gémmiñ waaw léegi hmm? waaw man a ma la waxoon yëpp naa téye seen gémmiñ gëmu moon mais téye naa seen leen nga la. man ñooñu xaw ma sax fu ñu ne man du ma la musuma leen suivre fu ñu ne. année Kouramaki. Euh, euh, xaw dégg naa ñi ngi rayante dégg naa ñi ngi rayante seen biir. bi nga xam ne ko defal ay vidéo te man ma yore ay vidéo yu gën a garaaw boobu yónnee gu ma wax parce que yow da nga tàgg xam nga coup de sang ngay demee dama la jox rek nga balance te nee la lépp à bon Allez, audio, et moi, on a l'électionnaire, plus rien à cirer des audios diverses. man la nañ ko garder pour Ousmane Sonko nañ ko garder ma yónnee Sall damay répété Mbour ah Mbour l' avocat ko jox ko ay tegtal naandul naandul ma la mais dama la bëggoon a léegi defal la neex sama yoon newootu ci kenn man sama fierté laay demee ak sama con sama tranquille mais ma lay rek Sénégal comment il fonctionne parce que. je les maîtrise ndaxte netal na la Abdou Diouf bu ñu recevoir bi ñu grévé Van Vollenhoven hmm. yaa nga faa dóg man maa ngi dégg rek gars yi dañ ne ma déglu quoi yow rek laa déglu instant ñëpp a ngi lay déglu boo waxee lu am sens dañuy jël boo waxee boo waxee di tourner ñoom ñu ñoom ngay nalawal waxal rek waaw ñi ngi lay déglu gaz sax ñi ngi dégg ñi ñi ngi dégg ñu yëpp ñu toog ba ñëw toog père yow yaa ma wax ni Fouta Tampi da doon jaay ak fële tamit euh, da doon jaay ay mboq Euh, pharmacie pharmacie ki lu mu tëddati. déedéet dama na la dama ne la pharmacie de Tampi nag dafa dem di jàppale di jaay mbokk ci boru pharmacie bi nga xam jabaru Cheikh Omar Anne moo ko yor madame Anne. Ah, non jabaru Cheikh Omar Anne mo yoron ben pharmacie fan ban quartier la. yooyu ñoo ñëpp seen dossier dañuy yor non pharmacie Tampi yor na lo xam billahi bu génnee. Sénégal tas père père euh, père moom da doon jaay da doon jaay ay mbokk di jàppale yaayam ci soufu pharmacie euh, pharmacie pharmacie bu nekk fan. non à côté pharmacie bi nekk à côté. fan. à côté pharmacie jabaru Cheikh Omar Anne bii nii Cheikh Omar Anne. ban quartier. Euh, Wakaam. Wakaam ah d' cité avion. waaw Omar Anne bii ministre de l'Intérieur. xam naa ko cité avion moom tamit nga baal ma bee ba mu wut mat laa denc ko ci ci daanu lay bokk. kan Cheikh Omar Anne ok. waaw day daan wuu day daan mais il le dernier ou l'avant-dernier. ok. waaw day daanu waaw xam nga Mamour moom day diw mbay maam mbay ña ñëw ak ñeneen ñi bagage bi bi balde day daanu aussi dama lay jox liste bi rek. Hmm. waaw dañuy daanu dañuy daanu teer lañ jëm du question dara c'est ça c'est. waaw waaw Fouta Tampi am na ñetti doom yu bokkul bàyyi. non loolu daf ko lijjanti ci koñ bi ko lijjanti yow day day da ngeen may wax lii ne ma la kenn ki mécanicien ko jur kenn ki leneen kenn bokku ci ay mécanicien yi nekk ci koñ ba foofu. Euh, kenn ki dem jaay mburu bi ak pinton beeg yooyu noonu moom kon da ko doon tay la di ñett doom bokk benn baay ñu jox mu jox mécanicien jox kii ak ñeneen ak ñeneen ñu fa jëreewul doom. kenn bokk ci baay. la ilaha illallah. waaw man de xam nga man damay ñëw xam nga booy. ak yeneen yu ñu ak yeneen yu mu encaissé ci ci ci protect beeg yooyu. ok d'accord daaw yow grave ok. non non non mais c'est une femme nga baal ma de je suis désolé ah. les femmes jigéen ñi yàlla na la yàlla defal sutura. defal leen yàlla jigéen ñooñu yor ñun ñëpp. amiin waay. jigéen ñi ñooñu yor. Hmm. yeeg bàyyi yeeg ñi jur ñoom ñooñu yor. waaye gëmal sa bët fi may wax ak yow gëmal gëmal jël sa loxo sa bët. gëmal waaw. teg nga ko. waaw. خلات الفاتو ما تسعم في بوس ميكو سكنم بالله والله تالله بو خدمة ردفني يعني سفرة لا مرة لا لا لا لا لا ما خد ما فيديو ما لباري يوني ما ما لا ما لا شاطع جو ما بير ما ما بعد بل بل ما أمد بعد دوين زك دوين زك ما أمد خل بو خالته بو جلس رجاب ما بير لا ما ده أنا بل ما يوني ما ما يا كم الله كرو ما كتير ناوتات بنو نبوتو ما بقوله هو يا يا يا كوني sama waa jaay informatique nekk fa lu ci ku la ko waxoon. yaa ko ko daaneel. yaa ko ah, ku ko daaneel. yaa ko daaneel de. est-ce que mën nga ma may une minute ma ma ma ma sama benn waay. jaay santal sa waay. MC Dias. ah. yàlla gudd fan. amiin amiin waay. yàlla ko barke baayam topp. amiin amiin sama xarit sama xol hmm. yàlla na ko baay barke baay bu topp yàlla na ko yàlla dolli iman ixsan ak lislaam MC hmm. Niass hmm. ku ko jaarle ci seen ràpp yi ngeen la def nax nga sa bopp duma taalibe baay billaahi du nit lan laa la waxoon ci MC waa da nga noonu audio li nga waxoon ba léegi moo fi ne non loo wax moom am na moom vraiment <laughs> ne nga woon ne audio ne da nga ma woon ne ma audio yi loolu yàgg na de. waaw nga non nee nga nee nga ko génne te ba léegi audio yi loolu moom waxoon nga ko. képp kuy taalibe Baay demal nga jébbal ci MC Niass. Ah, waaw. Hmm. man may taalibe Cheikhul Khadim di xarit sëñ Babacar Si. waaw léegi nag loolu léegi loo bëgg a wax foofu loo bëgg a wax maanaam maanaam MC Niass loo loo bëggoon wax. xam nga dama la taalibe Cheikhul Khadim bëgg sëñ Babacar si xam Baye Niass xam xam Baye Niass ak xam li mu def waxuma la Nigéria ak xam li mu def ci biir Sénégal mais par exemple man ma soxlaa lu yàkkamti man ma doon taalibe Cheikhul Khadim bu rëy boo xam ni. mais père yow yow mujj nga indi affaire bi ci ay taalibe taalibe taalibe Sénégal moo soxla fu mu nekk nii taalibe loolu loolu moom sa vie privée la. père ba taalibe moom sa vie privée la moom vraiment. bu ma yàkkamti taalibe Cheikhul Khadim la. waaw après sëñ Babacar laay waaw léegi après. waaw léegi après et Sénégal dans tout Sénégal dans tout dama leen bëgg wax benn affaire. bi ah. boo leen ko mayee doo leen naaw. léegi àll yi ngi toog di lekk mais man maa ngi wër lu ma lekk déggoo ma nii seen pour sabat xaw ma lu ñuy sabat yoo xam ne du ñu war ma lekk. mais dama la bëgg wax benn affaire mais nga lii xew Sénégal dëgg léegi naa la ko en cinq minutes. ñëwul. ba ba ñuy commencé maag yow lu ma la waxoon soixante treize député nga am. waaw. man la tey lu ma la wax cent douze nga am fi toll nii fi ma toog nii ak man ak yow cent douze nga am. cent douze ok. waaw cent douze majorité nga am waaw d' accord d' accord. yeewi askan wi yeewi askan wi pas man yeewi askan wi. dama dama ko sauvé mais nag kaay wax la benn xam sénégalais ñi ñi ñi ngi cotiser xaw ma nu mu euh, capitaine Touré euh, di cotiser day Khady mais sama sama bàyyi xaal ba ndeysaan aywa waaye garaawul yónnee naa ko temps yii dollars sama Baye Fall ba Baye Fall ba daal di ko yalwaan nekkoon ci hôpital Fann ak nekk butik day Khady Ndiaye wàcce nañ ko de gars yi nañ ko mu daanu de. non baale nga wax nañ ko. barke Cheikhul Khadim. ah mais pa père yaa kalaate Baye Fall bi yaa ñëw di ma Cheikh Baye Fall ah, mais yaa ko kalaate de. non ko non du man maa ko kalaate maa ko man dama ne Baye Fall mais xamoon ne naa ñii dañuy nand. ah non Cheikh Baye Fall yaa ma wax maa ko njëkk a wax fii après Pape Alé ñaa ñëw wax <laughs> yaa yaa ko kalaate de père. boobu moom moo na pap xam nga Pape Alé du nit Pape Alé jinne la Pape Alé euh, kooku wàlliwu kabal la buy dox Waliyu Kamal. waaw mais mais mais bu dee wàcce nañ ko tamit ah, yow yaa ngi nii yow ne nga ma sa benn boy bu ma warul wax ci affaire yi ma wax ko mais yow Cheikh moomu tey Cheikh Baye Fall moomu maa ko fi wax Pape Alé ñëw wax. ñu ah. mais le problème man dama am na ñoo xam ne dama ne bu leen tudd seen tur man mosuma la ñaan keneen mais xam nga barki dem daal la ñaan na la am na ko ñoo xam ne bu leen tudd parce que am na ñoo xam ne man dama am pion fu ne. Hmm. mais kii boo tuddee samay pion day bloqué. yenn information yoo xam ci yenn côté mais yeneen côté yi na am information yëpp mais dama la ko wax man ba may tudd di jaal kan ko tudd ba may tudd sama Baye Fall ba ndey ndey euh, ndey Xadi Njaay di ko répété ah, waaw Rijal waaw hôpital Fann di ko répété ci buntu këram Rijal mu ngi ci gendarmerie bi la newoon les gars nañ ko quoi eh, bu ci détail yooyu neel rek te bàyyi waaw Rijal waaw ok moom kon éliminé nañ ko quoi laa hmm? ah, ko du ne defar xam ben sénégalé cotisé ko té koku moma dimbali dimbali sama waa ji nga xamné man bokkuma partem xawmako mais sama bir xol la né <laughs> wa kon légui yow légui yow da ngay da ngay woote ndimbal pour Cheikh Baye Fall quoi Rijal wa Rijal mais dama ne borom maayo Marseille ba sama xol la ne mënuma ci dara sha <laughs> allah bu <laughs> bëgg bañ bëgg bañ té koku ko daan daanu barki Cheikhul Khadim ko song Ousmane Sonko di ngay gëtte Mm-hmm. man mii maa ko wax man mi nga xam ne lu bon rek laa mës def sama àdduna di mm-hmm. jéggalu nag pour sénégalais moo tax ma jox information yi xam nga quand je te parle regarde Oral yi ba ma koy wax kan moo ma dégg mm-hmm. kenn dégguma te comprendre ba léegi ma ko gis après nga waxal ne waxoon na ko père waxoon na ma ko ah, waaw waaw la guerre de Darou wax nga yow wax nga ko fi sax yow sa bopp yaa ko wax yàgg na mais dama la xam nga mënu ma expliquer lépp Sénégalais dina expliquer ne la man je ne ma ma Macky Sall man lu ma wóor man lu ma wóor man lu ma wóor ah regarde quatre-vingt-dix pour cent Macky Sall du présenté wu deux mille vingt quatre man xaw ma ñoo xam de mais dama la Macky Sall il va pas se présenter. Hmm. parce que dama xam nit ki xam waaje am ay information yu gën a wóor ñu tegoon benn suñu teg benn deal boo xam ne Reug de affaire bi échoué dafa échoué moo tax ñëpp ñu doon yeewi te waxoon naa la ko suuf loolu maa waxal ma la waxoon ci suuf. waaw hmm. ah, ba ñuy toog ñu lay woo ñu luñ la woo vidéo lañ la wooyee wiwu no waaw vidéo ngeen ma la woo pour ñëpp. ñëpp kontaan ci yow mais dama la wax sax xam nga yooyu ba ma dama la mais gis nga euh, et pourtant pourtant kaay moo tax dara nguuru ko jàpp de mais c'est pas une mauvaise personne c'est pas une mauvaise personne moi ça je te dis franchement na dégagé nag na dem na dem na dem a dem a dem a dem a dem foo xam na jëm. Macky Sall mais une mauvaise personne du nit ko bon. oh père ñun loolu suñu ñu ah, nit ku bon la sax ci kat bu bon la nit ku bon bu yées la sax. fexeel boobu boobu ba gëmloo ñu fi leneen. man man xam nga lu tax man man suñu personne nit bu bon a ngi noonu. nit bu bon a ngi noonu. ku sàcc ay milliards nit bu bon nga. nit bu bon man de man man laay wax. ah na dem. na dem mais nit bu bon la tamit bu bu ñu fi wax du nit bu bon waay. kooku fekk benn doomu aadama bu bu dem lijjanti ba dem Amérique. mu dem lokati ko foofu indi ko tej ko ci kasse dam tank bi nga naan doon nit bu bon lay wax ni way sa way nit bu bon moy def lolu way père ah bis moo la xëy nan lañ tëggee problème u Assane Diouf ah mais ni tëgg problème Assane Diouf ci la bok lol ñaaw na de non ñaawut mais dama ci la bok non kon ñaaw na kon def na lu ñaaw non da da xam nga tax man la ci laa bokk ah. am na niveau bo ba fayeron fa yaram bëgg arrêté mais yow Babacar Diagne bi boo yéen suba nga baal te Babacar Diagne euh, nga baal ma de ñëwul ci Sénat ndiir waxuma la loolu de mais mais lan nga ci bokke mais mais lu lu nga avoué dafa ñew kon bokk nga ci ñu éliminer Assane Diouf quoi. non non non non non non non c'est pas éliminé Assane Diouf yàlla boo éliminé Assane Diouf. waaw léegi wax fofu ne bokk nga ci. mais le problème euh, c'est le mensonge le mensonge vient de l'État l'État c'est quoi c'est l'ambassade l'ambassade c'est qui c'est Babacar Diagne mais amna na limite yu ñu kon dañ ko fénal xam nga liñ liñ tegal Assane Diouf ci kawam le problème c'est que Assane Diouf benn affaire rek ko mënoon sauver mu jour boobu mu nekk këram mais daf ko tegal loo xam ne yow américain wala français nga leen terroriste <laughs> y a un problème y a un problème. waaw boo nee terroriste rek y a un problème dañuy ñëw di xool ba ñu vérifier xam ne du terroriste il savait que c'est devant terroriste mais le problème c'est que il avait pas ses papiers mon frère. Mm. c'est le problème le contraire avec Tunkara euh, euh, Tunkara Tunkara li ko sauvé nga baal ma waxu leen ko Tunkara bi may dégg dama ko fàtte gërëm nag dama ko fàtte gërëm mais Tunkara li ko ci génne ay doomam moo ko ci génne de mobilisation ay doomam moo ko ci génne. waaw daa daa dama la rek dama koy gërëm nag ku baax la nag sama mbokk saraxule boo xam ne dañu bokk loo xam ne ci Malick si ba ca kaw. am na loo xam mënu ma ko wax Tunkara maa koy gërëm tamit waaye nag moo patron moo patron ak affaire a kon moom dama koy gërëmaat yow moom dama gërëm parce que yow yaay man affaire na kon moom dama koy gërëm di ko gërëmaat ñëpp di ko def jiji dama ko melool waaye bu ma ñibbisee jóge Tel Aviv dinaa ñëw seeti jiji jiji moo xam naa naa toog ba dee dinaa toog di ree ba dee mais dama la bugg wax ne la le Sénégal ma expliqué la qu'est-ce qui va se balaa nga ma wax la Sénégal nii lay demee dañuy de waaxu tuuti ma jox la man maa la jox élément ne la Barthélemy lii mooy xew léegi ma ma may la benn affaire léegi eh, ñaata nga may yónni ma wax la Barthélemy ñaata lañ ko dóor suñu tonne est-ce que xam nga yor naa verdict bi. ah, ah <laughs> dóor nañ ko waaye naa wax eh, xaar loolu moom woo ma ci suuf <laughs> xaw ma yaa ngi may déglu rek yaa ngi may ci Sénégal yi may am problème Barthélemy ba may wax ne ko Imam Ndiaye. papa Imam Ndiaye laa imam Ndiaye actuellement Papa laa yor ba may expliqué El Hadj Diouf yaayam El Hadj Diouf la mu fa def ak xale bi doomu jaaykatu cere la mu fa def ci ginnaaw muul yi ba ñuy yokk yaayam ma lay ne Imaam Ndiaye ma ma wax la ñu wax la arme bi fan laa ko denc arme bi lu tax arme boobu ba ma la wax la nañ dem wër. xa même une seconde rek wax nga ñaar wax nga ñaar da nga gis nga Sénégalais ñoom mënuñu la comprendre mais xam nga man te bëgguma comme di di la di la waxloo benn affaire comme sa ñu ñëw wax fa Sénégalais ñoom ñu la comprendre xamuñu la ci bi mooy deuxième fois presque bu ñu la dégg wala maximum troisième fois mais man man xam naa ni nga man yàgg naa yow quoi dama ne da wax ñaar da ñëw ci imam imam Ndiaye doomu imam Ndiaye ñëw ba fenn nga ne El Hadj Diouf IAM mais loolu rek sujet la c'est-à-dire mun nañu lan moo xew El Hadj Diouf IAM IAM en extension loolu lan la lan doomu jaagatu cere ji lan la gaat quoi. après ñu euh, dem ñu continuer. mooy sama organe. lu tax euh, nga may posé question te li xew yaayam yoo xam nga. xam naa ko mais man dama bëgg nga expliqué ko man kay jox na jox nga ba dossier bi wala nga ma rési quoi. dama doomu jaaykatu cere bi laa jàpp ci ginnaaw mool euh, sagam bi nekkoon di garde école yaayam ñëw bëgg a xale bi doomu jaaykatu cere bi. maa ngi lay deglu de. expliqué naa la ko. mais mais père waxatoo man de sénégalais ñoo lay déglu. li nga wax ni yëpp xam naa ko. léegi kan moo ko dimbali Imaam Ndiaye bi nekk ak Barthélemy baayam moo dimbali ñu seddal sutura. Hmm. waaw El Hadj Diouf de habité en face de l'IAM IAM école boobu bu Giras yow. mu bëgg laal doomu jaaykatu cere bi bu ko violé. non mooy sër la tekki doomeeraam ji. sure waaw xam nga loolu El Hadj maître El Hadj Diouf di rëy laa min di wax xam nga loolu la viol Paris man la Paris ba ko génne ci yoon yaa ko fàttaliku di sa ci non loolu wax nga ko mais IAM bi IAM man wax nga ma IAM dafa ñëwoon di bëgg xam nga la ko yàgg na. waaw te waaw récidiviste la moom récidiviste la. papaam ji nga xam man man papaam papa Imam Ndiaye bi nekk ak euh, Barthélemy Diaz. Hmm. ak euh, Ousmane Ngom ñun ñëpp laylatul xadri ñooy toog. ok fajar ma defar samay beñe ñoo teg. waaw mm. ma ba ca pare man la affaire Barthélémy man la fan lañ suul arme bi du moom la ñuy wër moo tax ñu yóbbu sa ah, tàpp. non loolu wax naa ko loolu wax naa ko pare gars yi wax nañ li ngay wax tam gars yi wax nañ ko nee nañ c'est vrai El Hadj Diouf foofu la dëkkoon. père père il habitait wax nga ko loolu wax nga ko. voilà gis nga nag gis nga nu ma la indee foofu ba nga leeral affaire xam nga ñoom xamuñu mais man li ñuy wax ni est-ce que yow li nga may ra père xaaral père. li ñuy dégg nëbbuma ci dara. waaw père ma laaj la question. waaw est-ce que li nga may wax nii li ngay wax nii yëpp sénégalais yi waxoo ma ko de est-ce que li may wax nii mosoo ma ko expliquer ba pare. yàgg na. <laughs> li nga wax ni yëpp man dara beesu ci. Ah, mais nga baal ma yow tamit yaa ngi may boole sénégalais mais yow li ma la expliqué est-ce que waxoo ko lépp sénégalais. déedéet waxoo ko sénégalais moo tax tey dama laa may occasion pour wax ak sénégalais mais sinon boo noppee ma yeggali ko. yow ci sa bopp yow li ma la wax lépp. est-ce que waxoo ko sénégalais. non mais dossier dafa bëri dama koy ndànk-ndànk rek. est-ce que est-ce que waxoo sénégalais problème mu euh, compagnie sucrière. Mimran ñëw ba Grand Moulin wax nga ko. non ko boobu mooy mooy liste góor jigéen yi kooku kooku après la. est ce wax nga ni bu ñu paree nii par exemple weekend bi ba ma ñibbi si Sénégal incha allah lan la ñuy song ministère des forces armées. waaw loolu yor naa dossier boobu. après song après song police li fa amee ak yàgg li mu préparé pour sénégalais yi. mais père mënu ma mais maa ngi def ay live maa ngi wax ndànk-ndànk mënu ma mënu ma mënu ma wax lépp dossier yaa ngi fii. léegi man lu tax amay sonal te man maa ngi xiif nii fii ne di oh, lu ma li jënd maa man ma xalu Saalum sax jël waaye fii dëkk bi mais parce que te père man yow laa invité tey mais li ngay wax ni boo noppee sax mun naa ko yeggali parce que maa ngi koy def wax nga ma lépp. mais dama lay expliqué rek ne ban dossier laa la waxul lan la ñu wax ci ñaari port minéral lii wax naa ci tamit jot naa cee wax. déedéet waxoo ko ci dee. Dame Diané wax naa ci père yow yaa may déglu déglu wax naa Dame Diané. ah dama ne la dama ne la foofu nga yem mais dama lu gën a garaaw ci biir. li ma jox rek laay wax lu gën a garaaw boo ma ko joxut mënu ma ko wax. si la ñuy defar xabru sëñ Fallou bi nga xam ne moom rek laa gëm te yaakaar ko te bëgg ko te jébbalu ci moom def sa deux milliards. ana ñooñu. ah mais ñan la man xaw ma li nga wax de. loolu moom xaw ma ko li nga wax nii yaa moom. ñi defar xabru sëñ Fallou bi. waaw léegi lu xew ana ñooñu. ñooñoo ñan. ah ñooñu ñan wóoru leen. leen. wër man aw sax seen jot ba leen di wër. boo waxee ñu ngi jéglu boo waxut ñu dem seen yoon. sëñ Fallou bi nga xam seen Fallou bi lañ yaakaar ñooñu leen jéggal na dañu sori père père déglul père per li ngay wax nii da nga koy wax sénégalais père man sama dund newul Sénégal sama lekk newul Sénégal sama naan newul Sénégal sénégalais ngay waxal. mérite na kii mooy Dame Diané Dame Diané ngi nii. parce que foofu milliards yi waxaguñ ko. waaw mi ngi nii kii mooy yor koor bi kii doomu nday Marème Faye Sall la waxoon naa leen ko wala waxuma leen ko woon mais père may ma. yaa may laaj ba xam wax naa yow yaa ma seetaanul kii wane naa ko fii wax naa ci poor yi ñaari poor yi waaw. waaw saa waay nan nan laay gérer ñetti dëkk. yan laay gérer ñetti dëkk alors yaa xamul mais man wax naa ko deux cent deux cent quatre vingt dix milliards sendu port sendu beeg et cetera scandale yi loolu jot naa cee wax. boobu juum nga ci xaalis ba juum nga ci xaalis. non man kii bi rek laa wax dafa nang de sendu bi laa la wax deux cent quatre vingt dix neuf deux cent beneen dama koy rek ah. mais bu juum nga mais man xam nga mënu ma gérer trois. mais lu ma juumee léegi kon kon kon kon correctionné la ma kii ma lan laa juumee. waaw dinaa la correctionné mais dama. déedéet déedéet fi nga koy correctionné déedéet déedéet déedéet day leer fi nga koy correctionné. nga tamit lan laa juumee. dinaa la correctionné mais dama la man yan dossier laa la jox ak ñu ma la jox. père li nga ma joxoo ngi nii kay maa ngi lire deux cent quatre-vingt-dix milliards yaa ma ko jox. nga dama dama jum. non non non dama la jox loolu loolu nga gis mais man la ma yor xam nga wax naa la ko nawet ëpp na man waxoon naa la ko nga baal ma je suis désolé. ah mi ngi nii de deux ans mi ngi nii dossier baa ngi nii sax nag mun na xaaral ma tegal ko ñuy vidéo bi sax nag. boobu boobu port nga gis mais ñaari port la. waaw loolu man séntu bi laa liir. waaw boobu nga liir mais ñaari port la loolu laa lay suy lan la fal dagg teelul seen gaz bi seen pétrole bi sax muy jaar mais liir naa ko fi ba tàyyi per xaaral ma xaaral kon. nga nga non su ma génneel kay ma lekk laay wut yow. waaw mais ma wax loo dara ma wax ba pare après nga ñëwaat di wax naan non du bii du bii non non non. man du ma weddi nit mais dama ne la somme boobu. ëpp mais li ma jox laay wax. li ma jox wax. la man la du ma leneen. kayit yaa ngi nii. xoolal base ba base ba. 280 <laughs> la.

déglu ma dama bëgg déglu ma déglu ma. mais lan ngay nëbb ci ci ay chiffres deux cent quatre-vingt-dix milliards mais fekk trois cent milliards lan ngay nëbb ay chiffres. non may de juumu ma de li ma wax laa wax juumu ma de li ma wax la mais dama la ma may la benn exemple. xam nga building bi li nga annoncé loolu ëpp na loolu. waaw mais loolu yéen la yéen ay nekk bi di di di tourner nit yi. xam nga man man maa ngi lay a non dama lay wax bëgguma la je veux pas te faire mentir mais dama la ne lii mooy base lii la xam nga loolu xaw ma ko père. man père mais père foog ñu foog ñuy dégluwante père xaaral rek père nañ dégluwante ngir yàlla li laahi war a suuli. incha allah yow. da nga may wax xaaral da may wax. temps léegi nag yow boo demee yow yaa nekk ci dossier bi boo xamee ay avenant lii moo ci yokku lii moo ci yokku loolu yow yaay ñëw ne lii laa la waxoon am na ay avenant am na xaw ma xaw ma sax luy avenant déjà man xaw ma luy avenant sincèrement di ma ko expliquer peut-être ah, am na ay avenant mu yokku man xaw ma ko. doguma la de baal ma est que ma baal ma wax lan mooy avenant. man mooy dem bu may dem bu may dem ci base dégg nga bu may dem ci base ci base ba laay commencé di yéeg di dem xamal li ma la wax ne la building ba building ba xaw yërëm naa yërëm naa sénégalais yi ndeysaan dama yërëm sénégalais nag père may ma rek ma woyee ay milliards ay avenant ay teg deal yokk ci non mais c'est triste bu ma dégloo rek may circuler eh, damal chose rek eh. damal bu ma la nee bi catastrophe ñoo na la covid bi catastrophe déglu ma de bu baax a baax di la wax avenant yi di la wax ba ci poor yi man maa la jox poor yi man maa la lépp loo wax yow sa gémmiñ man maa la ko jox te mosoo te kenn mosu la weddi waaw ah, waaw non kenn musuma kenn musuma weddi moom dëgg-dëgg kenn musuma weddi xam nga lan lay wax ay bàyyil fen bàyyil fen mais kenn musuma weddi moom weddi moom amagu fi. ma lay expliqué loolu ma expliqué la kan moo la jox euh, hôpital Dantec ba ba Satrak ba Pays 10 fi muy gaare. père mun nga ma may 30 secondes ma wax. père jërëjëf amul loo ma mus a wax lu deñ loo wax am na te per père xaaral même même une seconde xanaa loo ma wax am na loolu dama la ngay santé gërëm la te man da nga ma wax ma wax sénégalais kese awuma ci gañewuma ci dara. li may wax ni gañu wu ci tous. Sénégalais baal ma laisse tomber parce que xam lu tax. voilà mais ñëpp a toog seen télé di di déglu xoolal bu ñu paree xoolal fàtte nañu mais xam lu tax. mais c'est vrai. man pourquoi j'en veux au Sénégalais. c'est Cheikh ma ko dégguma ko mosuma xaw ma Cheikh Omar Gaye moo tax ma mere Sénégalais yi. waaw mais père père xaaral ma eggaliwu ma sax dama ne loo ma wax am na sincèrement xam lu tax say wax neex ma ma ñime di ko wax boobu ba léegi maa ngi wax benn doomu aadama ñëwagul ne lii ay fen la. indi ay preuve dindi loolu est-ce que comprendre nga loolu moo tax man ma gëm li ngay wax parce que li may wax même ñi ñuy yónni dañuy ñëw rek pour brouiller bàyyil fen bàyyil fen mais ba léegi kenn indiwul ne lii nga wax du dëgg lii mooy dëgg amugul donc li ngay wax merci beaucoup amul ku ko mën a dindi kenn ñu sax dossier ba koy dindi ñoom. mais mais mais fan la yëngu le problème xam nga xam nga yéen ci benn waxtaan may wax ak yow ci benn live il explique le problème de Rodolfo, il peut Rodolfo. Tu te rappelles Ah, Rodolfo, wow. Rodolfo, gendarmerie nationale, Meng, euh, l'enfoiré brigade de recherche, bien qu'on a capitaine Touré, du Fahel Ousmane Sonko. Problème Rodolfo, c'est un problème grave. c'est un problème problème Rodolfo y a un ak mais père euh, waa léegi père je ma wax la benn affaire gis nga ñun. père xam nga ñun luñ mën wax.

mais dama la bëgg expliquer regarde bien personne ne bouge Cheikh Omar Gagne, ben convoqué là, la mais père père mais père forcer sénégalais bouger. non on peut pas les forcer à bouger lu nga wax bougement ñun ko idée on fait quoi. on fait quoi on fait que sensibiliser.

ah day déglu rek bu heure bu bëggee génn mu génn. Légui ñun on est là pourquoi parce que moi c'est un problème de conscience c'est c'est dans ma tête c'est c'est c'est psychologique c'est ça veut dire je me libère mais le problème c'est que mais li li ñu leen wax ak li ñu leen wax yëpp depuis 3 4 mois waddal ñëpp ñi daan yu yuuxu ñëpp ci nga waddal leen ba paré den tégal lu réel mais personne ne bouge Cheikh Omar dia ils ont mis en prison ma expliqué leen ne leen élection ay léegi may ma nañu bàyyi li wax ji wax yépp man ak yow nañ dem ci élection législative mais ngi mais ci ma ce qui va se passer de nga bëgg defal en direct Mais defal le en direct et les ma tu du teggeeku li ma wax ils sont là à l'écoute ku nekk a ngi toog sa jeeg sa toog sa ils vont jamais bouger le problème c'est que là où je te parle là où je parle moi je suis pas euh, militant de PASTEF ni de Yewwi Askan ni quoi. ils ont 112 députés maa ko wax Sénégal bu fekkee nit ñaa ngi may dig c'est le problème cent douze députés te mën nañu avancer mën nañu reculer te bu ñu reculer ba dee ba dee ba dee dee ils auront cent et cent moins cent soixante cinq ça fait combien. waaw yaa ngi may dégg. maa de maa dégg maa yore maa dégg. dama bëgg ñu yeewoo ndax bu ko mën jox da yow ba kañ laa la wax cent douze députés. yàgg na. kan moo jox stylo ma euh, Déthié Fall ne ma ne ma delloo sama stylo. ba may ba may wax du boobu dégg nga ne ma lan moo xew ci biir lan moo xew ci biir moo ñëw nettal la détails yi xew ci biir yëpp ba pare lan moo xew ci Ndeye Khady Ndiaye ak euh, Adji Sarr bi nekkee euh, ci biir juge bi kan moo la nettali nga def ko direct. man maa ko def waaw yow yaa ko nettali. ku ku wax. yow. waaw donc euh, nag voilà respect respect. c'est je, je parle un peu en français, les petits PD qui se permettent, le nouveau le product, qui se permettent de dire, ouais, si nous Morgan, tout ça, euh, je vais être un peu impoli, s'il te plaît. Je vais être un, peu impoli. Il n'a qu'à aller se faire enculer avec son père et sa mère. Tout mon monde, je vais être très impoli. xam nga taalibe sëñ Tuubaa la mais fi ne tubaab laay laax pour bañ a wax loo xam ne murid dañ may mere du ma moroomam xaajuma ci moom xaajuma ci xaaju moomam maa dàq jàng baayam dàq dàq ko jàng dàq ko leneen c'est des petits types qui veulent qui valent rien du tout ça veut dire que moom ci boppam moom ci boppam Harriet sort de la préfecture, dépitée. Hmm? Elle vient de signer un PV d'indemnisation sans savoir ni lire ni écrire. Elle était accompagnée, ce qui ne pas empêché de se faire flouer, selon elle. C'est pas normal. J'avais pas un petit champ, mais un grand. Eh ben, le problème là, c'est que tu as déjà signé a cultivait un champ de bonbons. Son terrain a été réquisitionné par l'État pour y construire un port en eau profonde. Ah, l'État m'empêche d'aller dans mon champ et il ne m'indemnise pas assez. Je croyais que j'aurais pu investir dans une autre activité pour l'avenir. On a pris nos champs, on nous donne une compensation dérisoire. Nous aurions préféré garder nos terres parce que c'est la terre de nos ancêtres. À quelques kilomètres de là, dans le village de Sendou, Harrieta veut nous montrer son champ, ou ce qu'il en reste. Comme ça, c'était des plans de Gombo.

mënuñu leen forcer. ni ñuy réagir rek mooy yenn saa yi ñeene père dañ ko jënd père père a ngi nii taxaw nëbbul baatam nëbbul dara ku may bëgg wër da ngay ne ma diira faa booy ma diira jàllu jeex na <laughs> voilà. seen dugub yi laa leen doon woon quoi. j'en ai marre de ces petits trucs de ces radicaux qui parlent de tout ça man Macky Sall man Macky Sall dafa xaj ci moom man man sama bopp xajuma ci Macky Sall et une personne que je respecte waa père nuyul gars yi affaire baa ngi jar une minute moo ci des léegi gérer gars yi bëggee gars yi moo gën Macky Sall Macky Sall ñun mënuñu laa déglu ci Macky Sall. ñëpp góorgóorlu leen mais le problème mooy carte yi voté ji leen voté ji leen vous êtes à 112 députés voté ji leen. d' accord mais yow nga ne vote am ba nga ne voté ji leen nga ne vote am nit voté ji leen. voté ji leen. fan voté ji leen ngir yàlla war a soli ngir xaadimu rasul ngir. waa père yow yaa wax ni vote am nga ne voté ji leen luy loolu. voté nañu dem voté ji. fan. bu ñu élection yi jotee nañ dem voté ji. kañ. kañ kañ. élection législative ne ñëpp dem voté ji. kañ. élection législative na ñëpp dem voté ji. ban moment. élection législative yi. juillet. juillet na ñëpp dem voté ji. mais yooyu yaa ne dañuy saboté affaire bi du am non. dama ne am na 112 mais bu ñu nelaw. yooyu yaa ne élection yi ay affaire taw non. dama ne taw bi moom inondation bi lañ la a joué euh, pour pour pour sélection yi. d' accord mais yàlla moo mën lu ne. yàlla moo yëlbati lépp. merci beaucoup dama la doon wax loo rek jaajëf merci beaucoup. waaw yàlla moo yëlbati lépp ndaxte fii dara am. <laughs>